may mun a siy si xool. yow boo ñëwee day nekk. ku bëgg may mun a siy si xool tàcc sa loxo xool. jóge nañu siège u alliance pour la république def caravane extrêmement importante et enrichissante de Mermoz doge dem Wakam Ngor Yoff Ngor pour terminer ñëw fii ci stade bi li ñu nekk ci en direct ce qui se passait dans le stade des Parcelles Assainies et on était impressionné, agréablement impressionné de voir que les gradins étaient remplis et c'était beau à voir par le direct que nous suivons depuis nos véhicules. Kon Monsieur le maire Moussa Sy, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar aux maa ngi lay féliciter ci mobilisation bi di wax ne la contribution des parcelles à la victoire ici à Parcelles pour que ñu mën a am la victoire à Dakar est une contribution importante moo tax ku ñëw gis lii ci Parcelles di nga am yaakaar ne incha allah Parcelles sera Benno Bokk Yaakaar mais aussi la ville de Dakar va être Benno Bokk Yaakaar lan la ñu bëgg a def à la ville parce que je suis persuadé que le maire a étalé son bilan qui est un bilan remarquable mais au niveau de la ville de Dakar il est important que ñu wax leen ñun waa Benno Bokk Yaakaar qu'est-ce que nous voulons faire à vous avez entendu parler du concept Dakar bu bees lan mooy Dakar bu bees Dakar bu bees mooy Dakar bu wuute ak li fi nekk tey mooy suñu turu programme dañu bëgg def un Dakar bu bees ak benn ambition mooy fexe ba Dakar ci compétition wu capitale yi nekk Afrique et dans le monde mu jiite ci nekk la première capitale loolu c'est possible bu fekkente ne jële nañ fi ñi fi nekk 2012 ba 2014 2014 ba léegi qui non même pas eu le courage d'assumer leur bilan et on laissé actuellement celle qui dirige la ville actuelle, assumer ce bilan qui en réalité est leur bilan. ñun li ñu bëgg mooy changer Dakar def ko Dakar bu bees d'abord du point de vue la gouvernance de Dakar en plus des structures yi xamante ne des instances yi xamante ne ñoom ñoo yore Dakar dañ si bëgg a dolli beneen initiative dañ si bëgg a la conférence territoriale des acteurs de Dakar qui chaque année day daje pour élaborer les priorités priorités yooyu nag mooy guider le débat d'orientation budgétaire mooy guider le bilan le, le aussi mooy guider la mise en œuvre des opérations dans la ville Dakar bu bees aussi sera un Dakar Vous voulez créer de Mais am na ñoo xamante ne bu ñu waxee la ville peut créer de l'emploi daf leen di jaaxal ils mais en réalité ville nañ lay créer emploi parce que ñun ñu ngi fi depuis 12 ans mënuñu créer emploi. bon bu ngeen ko waxee ci seen programme mënul nekk. nous leur disons oui mën na na nekk parce que dans le programme Dakar Bubes nous avons ce qu'on appelle le Dakar vert Dakar vert mooy liggéey dans l'environnement et tous les jeunes qui travaillent dans l'environnement vont être intégrés dans les projets de la ville de Dakar pour trouver de l'emploi Dakar bu bees c'est aussi un Dakar avec des quartiers sûrs dañuy liggéey les associations de jeunes les ASC dans les frontières des quartiers pour faire des Dakar sûrs et dans ma commune Yoff il y a des expériences de quartiers sûrs qui emploient des centaines de jeunes donc le concept de quartier sûr peut être une opportunité de création d'emplois pour les jeunes de Dakar. Un troisième élément, parce que tous les points de nos engagements de Dakar Roubaix ne peuvent pas être développés ici. Mais je vous invite à nous suivre. bu ngeen ñuy suivre di ngeen gis ne chaque jour danañu indi un élément de notre programme qui contient 100 engagements majeurs et 10 axes stratégiques. Pour les parcelles assainies, pour les parcelles assainies, la ville de Dakar va engager l'hôpital des Parcelles Assainies parce que c'est possible. Cette ville, cette ville n'a jamais créé, depuis la ville de Dakar n'a pas créé une seule structure de santé. ba léegi yaakaar naa ne structure de santé boobu ambition wu nekk hôpital loolu une ville war na mën a taxaw defar ko. parce que lépp am na dayo boo xamante ne programme Dakar bu bees il y a projet de l'hôpital des Parcelles Assainies que nous allons faire maa ngi gàttal di remercier encore waa Parcelles di leen wax ne ñaari vote la pour le premier vote da di jël le bulletin marron beige avec la tête cheval xam ngeen ko bu baax ngeen voté monsieur le maire Moussa pour mu nekk le maire des Parcelles Assainies bu ngeen paree ngeen jëlaat le bulletin mais côté ville voté Abdoulaye Diouf Sarr pour que mu nekk le dixième maire de la capitale du Sénégal maa ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah.